tubay wala nga nekk ku tekkiwul saram ndayam wala ku waale xamul mais képp ku waale xam nga nekk ramdaan jege waale di ànd ak waali di tëgg nekk ci concert bi wala ngay ànd moom di dem hôtel di ñëw doo tontu aadama nag xam nga li may wax te ku ci génn république wax ma loo xam ne waroo ma ko wax ma dëgg sa ndey ci ay preuve ak ay audio kooku kay damaa bëgg ngeen enregistré ko teg loolu kay maa leen ko wax yu leer nañ nag duma waxant lu leer nañ lii dama ko wax pour mu leer ay kaña lay doon ay si ndax wala ñu ci bokkul wala ñuy weesu public bi wala ñekk en dehors mais du doon ci biir Ramadan du am waaw kay léegi ma ñëw non laay la chef sax mi may apprécier quoi vidéo bu ma def ma apprécier ko laay la chef danoo sonn maa xalaa maa ngi lire sa laay la chef ndeysaan day apprécier rek danoo sonn ñoom ma danoo mën ta wax ak waale ndeysaan ñoom man man bu ma waxee vidéo wala ni d'accord mais su kenn waxul duñ wax xaaral ma déglu ko laay la chef ndeysaan yàllaa mën a seede de <laughs> ma ne ko yàllaa mën a seede de laay lu wax ma déglu loolu cay laay la chef booy barke Seydina Mohamed déggoo ma de ñi nga waxal ñoo bëri dafa garaaw de ñu kontaan dañoo bëri trop macha allah bu ñu bëri dañ ko dagaat envoyé ma ko ñu bëri dañ ko dagaat noonu envoyé ma ko. billahi ñëpp a kontaan. parce que benn si ah seen people 221 xaw ma moo ko dugal ndax ñu ko dagaat ñu bëri foofu lañ ko jëlee envoyé ma ko. non li nga wax dafa garaaw trop dafa garaaw trop barke Cheikh Khadim da ngaa laal góom bi quoi yow. loolu laa bëgg. non booy sa yi xeetu dëgg diis na trop. waaw yi xeetu dëgg diis na trop. dëgg trop trop trop. non gis naa ay ñoo xam ne moom. duñ duñ la ñemee woo wala duñ la ñemee. kenn du woo déglu la déglu leen Layla Chef li mu wax xam na li may wax amul ku may woo Layla Chef miy ànd ak waali ku dégg ba cëg dégg ngeen ko nii mooy audio nii amul kenn ku may woo kenn déglu leen bu baax. non booy xeetu dëgg diis na trop sa xeetu dëgg diis na trop trop trop trop trop. non gis naa ay ñoo xam ne moom. duñ duñ la ñemee woo wala duñ la ñemee envoyé message mais ñuy toog fi ñu toog di lëmbal xam naa ay classe yu si jéngee concert xam naa ne ay ay ay ñoo xam ne booy non mais àdduna dafa garaaw de booy àdduna dafa dafa garaaw loolu moom yàlla yàlla mën na mën na mën na lu ne yàlla mën na mën na changer carte bi rek Seydina ko parce que neexul si xol de neexul si xol de kawee xaaj yëpp yaa ngi gis dafa ay mooy loolu waaw dégg nga booy barke Seydina Muhammad déggoo ma de ni nga waxal ñoo bëri dafa garaaw de ñu kontaan dañoo bëri trop macha allah. mais ñu bëri dañ ko dagaat envoyé ma ko ñu bëri dañ ko dagaat noonu envoyé ma ko. billahi que benn site si si si seen people 221 xaw ma moo ko ndax ñu ko dagaat ñu bëri foofu lañ ko jëlee envoyé ma ko. tubay wala nga nekk ku tekkiwul saram ndayam wala ku waale xamul mais képp ko waale xam nga nekk randaan jege waale di ànd ak waale di tëgg nekk ci concert bi wala ngay ànd ak moom di dem hôtel di ñëw doo tontu aadama ndax xam nga li may wax te ku ci génn république wax ma loo xam ne waroo ma ko wax ma dëgg sa ndey ci ay preuve ak ay audio kooku kay damaa bëgg ngeen enregistré ko teg loolu kay maa leen ko wax yu leer naññ nag du ma waxantu lu leer nañ lii dama ko wax pour mu leer ay kaña lay doon ay si ndax wala ñu ci bokkul wala dañuy weesu public war a ñekk à door mais du doon ci biir Ramadan du am waaw ah, léegi ma ñëw non laay la chef sax mi may apprécier quoi vidéo bu ma def ma apprécier ko laay la chef danoo sonn maa xàllaa ana laay laay maa ngi lii sa laay la chef ndeysaan day apprécier rek danoo sonn ñoom ma danoo mënut ta wax ak waale ndeysaan ñoom man man bu ma waxee vidéo la ni d'accord mais su kenn waxul duñ wax xaaral ma déglu ko laay la chef ndeysaan yàllaa mën a seede de <laughs> ma ne ko yàllaa mën a seede de laay lu wax ma déglu loolu cay laay la chef. booy barke Seydina Mouhamed déggoo ma de ñi nga waxal ñoo bëri dafa garaaw de ñu kontaan dañoo bëri trop macha allah bu ñu bëri dañ ko dagaat envoyé ma ko ñu bëri dañ ko dagaat noonu envoyé ma ko. billahi ñëpp kontaan. parce que benn si ah seen people 221 xaw ma moo ko dugal ndax ñu ko dagaat ñu foofu lañ ko jëlee envoyé ma ko. non li nga wax dafa garaaw trop dafa garaaw trop barke Cheikh Khadim da ngaa laal góom mhm. loolu laa bëgg. non booy sa yi xeetu dëgg diis na trop. waaw sa xeetu dëgg diis na trop. dëgg rek trop trop trop. non gis naa ay ñoo xam ne moom. duñ duñ la ñemee woo wala duñ la ñemee. kenn du ma woo déglu leen déglu leen Layla li mu wax xam na li may wax amul ku may woo Layla Chef mi ànd ak Wally guddeeg bëccëg dégg ngeen ko nii mooy audio nii amul kenn ku may woo kenn déglu leen bu baax. non xeetu dëgg diis na trop sa yi xeetu dëgg diis na trop trop trop trop trop. gis naa ay ñoo xam ne woo duñ duñ la woo wala duñ la ñemee envoyé message mais ñuy toog fi ñu toog di lëmbal xam naa ay classe yu si jéngee xam naa ne ay ay ay ay gis naa fi ay ñoo xam ne booy non dafa garaaw de booy àdduna dafa garaaw àdduna dafa garaaw yàlla yàlla mën na mën na mën na lu ne yàlla mën na mën na changer carte gi rek seet naa ko parce que neexul si xol de neexul si xol de parce que seet naa ko affaire bi ñu ko jël ba mu kawee xaaj yëpp yaa ngi gis ay mooy loolu. waaw dégg nga. booy barke Seydina Muhammad déggoo ma de ñi nga waxal ñoo bari dafa garaaw de ñu kontaan dañoo bëri trop macha allah. ba ñu bëri dañ ko dagaat envoyé ma ko ñu bëri dañ ko dagaat noonu envoyé ma ko. billaahi parce que benn site euh, si euh, si si seen people 221 xaw ma moo ko dugal ndax ñu ko dagaat ñu bëri foofu lañ ko jëlee envoyé ma ko.